defe ñu yemoon ci ku tisooli ci julli waxoon ne wa man atasa fi salaatihi fala yashtagilu bilhamdi wala yaruddu ala man shammatahu wala yushammitu aatisan mu ne ku tisooli ci julli bu mu soxlawoo di wax alhamdulillah léeg-léeg même soo waxul alhamdulillah ki la dégg daal dina yarxamukallah mu ne wala yaruddu wala yaruddu man chammatahu ki ko wax yarxamukallah bum ko tontu ndax dañoo bëgg su nit tisoolee ne alhamdulillah ki ko dégg ne yarxamukallah yow miñ wax yal la yàlla yërëm gannaaw bi nga tisoolee ba sant yàlla nga ñaanal kooku eh, ñaanal la nga ne ko yahdikumullahu wa yuslihu baalakum yal na yàlla jubal leen te yewenal seen mbir wala nga ne ko yaxfirullahu lana wa lakum yal na ñu yàlla baal leen yooyu yëpp nag soo dee julli buum la ca fekk soo tisoolee bul wax alhamdulillah yaa ngi ci julli su amee ku la egg nga mu ne la yarhamuka allah bu ko delloo ñaan nga bu ko wax yarham lana wa bu ko yahdikum allah wa yuslihu baalakum yaa ci julli mu ne woo aaya fa in xamida allaha nag su santoon yàlla nag doonte tere nañ ko ko fala shay'a alayhi dara waru maanaa julli ga du yàqu te waral tamit sujjoot julli ga du yàqu te du waral te du waral sujjoot I think um, we went through this for Salamata, whose English may be a little bit slower. Like, I mean, I think a way better than my Pular. The author says here if one sneezes during the prayer, he should not concern himself with saying Alhamdulillah. Respond to the one who responded to him, or respond to the one who sneezes. meaning one should not say alhamdulillah if one hears one sneezing and then that person who heard the one who sneezed say said yarhamukallah the sneeze the one who sneezed should not respond to that uh, person hmm? to that person and when you also are in prayer and you hear someone saying you hear some, someone sneezing you shouldn't say yarhamukallah wala yaruddu uh, aati aatisan wala yushammitu aatisan meaning whenever when you hear a person uh, sneezing you should not say yarhamukallah yarhamukallah either uh, but if you were to say alhamdulillah he said you owe nothing. If he says alhamdulillah, then he owes nothing. Hmm. kuy julli daal na soxlawoo julleem bu saqatee waa mu tisooli wax alhamdulillah su amee ku ko dégg ne ko yarhamukallah bu ko tontu maanaam bu ko ñaanal boo déggee ku tisooli it bu ko wax yarhamukallah waaye nag soo waxoon alhamdulillah julli ka yàquwul su jot wa man tafaaba ku ëbbali fi salaati ci julli sadda na fat faawu gémmiñam bu dee saalum salum mu ñu ne sadda na mëdd faawu gémmiñam na fàtt gémmiñam maanaam na jël loxoom teg ko ci gémmiñam na jël loxo ndeyjoor bi wala naanaam na jël euh, gannaaw loxo bi moo xam ndeyjoor bi càmmoñ bi gannaaw loxo ndeyjoor bi ak kanamu loxo ndeyjoor bi waaye kanamu loxo càmmoñ bi nag kenn du ko fàtte gémmiñ ndax wax nañ ne euh, pour raxas sobe la wa man ku ëbbali fi salaati ci julli saddana mëdd faahu gémmiñam mën na ko mëddee gannaaw loxo càmmoñ wala gannaaw loxo ndeyjoor wala kanam loxo ndeyjoor hmm. wala yanfuthu du tufli illa fi sawbihi lu dul ci yéreem min gayri ixraaji xurufin ci lu dul nag génnee xaraf ci lu dul génne xaraf whoever uh, nan la ñuy waxeeti ëbbali yawns during the prayer he should cover his mouth and one should not spit except in his clothing meaning bu fekkee am na luy génn na nga ko na nga jël sa yére maanaam bu ko def ci jàkka ji wala fi ngay jullee and without making a sound fexeel ba bul génnee it benn xaraf ndax génnee xaraf dafay mel ni yaa ngi wax yaa ngi boole ci julli gi lu ci bokkut. yaay ma musuwaar nag. baax na bu waxee yére mu ngi bëgg a wax rek ne bu ko def ci jàkk ji. bu ko def ci fi ngay jullee maanaam musuwaar maanaam cloth fii firiwul sa yére yi bopp mi ngi firi musuwaar wala lu mel ni musuwaar su ko amul bu koy def buy tuflit bi maanaam xam nga ko euh, buy tisool wala buy kii daanaka liy génn noonu du bari su demee tamit ba tuflit euh, mënu koo bañ a génne bu ko génnee ci fu muy jullee waaw mu lu mel ni mouchoir mu def ko ci euh, mm-hmm. xam nga ak cet cetu ku dëkk ci àll ba liñ koy nangul bokkut ak ceetu ku dëkk ci teeru loolu mët a bàyyi xel la waaw mët a bàyyi xel loo teg waman shakka est-ce que li ma yéen a ngi gis écran bi mhm, waman shakka fi hadathin aw najasatin fa tafakkara fi salaatihi qalilan thumma tayaqana tahaarata fala shay'a alayh kii dafay julli ba ci digg ba muy sikki sàkk ndax njàppam eh, yàqu woon na balaa moo julli wala mi ngi am njàpp ba léegi wala mi ngi sikki sàkk ndax yéreem dégg nga amoon am dafa am na sobe wala yaramam am na sobe wala sikk sàkk googu bi mu ko dikkalee mu xalaat as diir ci julleem gannaaw ga mu ne ah mu daal di am certitude ne euh, am na làpp maanaam am na njàpp mu am certitude ne dara taqutoon ci yëreem lum raxasut wala ci yaramam lum raxasut nee na sikk sàkk soosu ngay sikk sàkk durée bu gàtt boobu du yàq sa julli te du waral su jot xam nga ci ngir imaam Maalik kuy sikk sàkk ndax am nga njàpp amoo njàpp sa njàpp yàqu na waaye bu fekkee nag danga nga sikk sàkk benn durée bu guddul après mu leer la ne am nga njàpp mu ne sikk boobu taxul ñuy wax bul dagg sa julli te sa njàpp yàquwul wa man shakka ku sikk sàkk na fi xadasin ci toj aw najaasatin mbaa ci sobe fa tafakkara mu xalaat fi salaati yi ci biir julleem xalilan lu néew dégg nga de summa tayaqana gannaaw ga mu wóolu a tahaarata ak laab fala shay alayhi dara warut ko dara waru ko na continuer julleem du sujjoot julli ga it du am benn du yàqu waaw whoever has doubt about a ritual impurity hadath or an impurity najasa that can be in one's on one's body or clothes thinks about it for a short while and ascertains the purity then he owes nothing he owes nothing waman iltafata ku geestu fi salaati ci julli saahiyan mbir moom nekkam di aji juum fala shay'a alayhi dara waru ko nga xam ne dafay julli ba ci kanam mu gestu waaye dafa fàtte tey wut ko dafa fàtte ne soit mi ngi ci julli wala dafa fàtte ne mi ngi def action gestu bi nee na kooku comme dafa juum dara waru ko ci wa in taamada nag su dee moo ko tey am na ñu bañ kumpa ñoo xam ne bu ñuy julli sax suñ jegee coow suñ jegee dara danañ gestu fa huwa gestu googu mu des def de makruhun luñ sibla li feek nag gestu bi bopp bi rek a dem gestu ak dox gi ñoo gestu moo xam gauche la wala droite la su juumee dara newu ci su ko tayee def na luñ sib wa inis tadbara nag su jotee dëddu nag alqibla te qibla ba maanaam gestu ba yemul ci gestu waaye tourné na yaram bi ba dëddu qibla xataa na dagg salaat julli ga julli ga yàqu na waaw ah, gestu daal ñett la bi nga tayiwul dara warula ci bi nga tay waaye yaram wi yëpp wëlbatikuwut dañ koo sib su yaram wi nag wëlbatikoo nga dëddu xibla julli ga yàqu na julli ga yàqu na <coughs> leer na de mm-hmm. nee whoever unintentionally looks around in his prayer owes nothing if he did it intentionally then it is makruh, it is disliked. If one turns his back to the Qibla, he must cut his prayer. He must cut his prayer off. You know, makruh, xam nga in Islam, we have five principles, right? We have five rulings. We have fard we have nadb we have karaha we have tahrim we have karaha uh, I said karaha we have tahrim we have uh, wala soo ko bëggee simplifier nga ne we have fard or mafrud that which is obligatory we have mandub that which is recommended. We have haram, that which is forbidden. We have makruh, that which is disliked. And we have jaiz or mubah, that which is permitted or permissible. juróomi atte yi ñooy atte lislaam makruh is the smaller brother of haram Mandub is a smaller or younger brother of wajib or fard. Hmm? So Mandub is some okay, makruh is um, disliked. Yes, Haram disliked. Okay. Haram is something that if you do, you have sinned. And if hmm. you don't because it is forbidden, Allah will reward you. That's, man, that's haram. It's something that if you do, you have sinned. And if you stop, if you um, stay away from it because it is haram, you will be rewarded. That's haram. Its younger brother is makruh. Makruh is something that if you do, it is disliked, but there is no sin. But if you stay away from it because it is disliked, you will be rewarded. But if you keep doing it, it can lead you to haram. That's makruh. Makruh, haram doing it sin not doing it for Allah reward makruh doing it no sin not doing it for sake, for sake, for the sake of Allah reward but continue doing continuing on doing it will lead to haram that's makruh fard is something that if you do you will be rewarded if you don't do you have sinned. Mandub is something that if you do, you will be rewarded. If you don't do, you have just left something that is uh, recommended, but There is no sin for not doing mandub, but there is reward for doing it. There is sin for not doing wajib, fard, and there is reward for doing it. Mubah is something that doing it and not doing it are the same. it is permissible. There is no reward for doing it, and there is no punishment for not doing it. Yes, there is reward for doing it if you do it with the intention of ibadah. With For example, eating ceebu there is no reward for eating ceebu and there is no sin for not eating ceebu But if I'm given a good cevijan and I'm eating it because I want to give myself some strength so that I can, you know, go to the masjid and help the brothers. And if I don't eat, I'm not, I'm going to be too weak to work, you know. Or I am eating because I want to get some strength that I can help myself in standing the night in prayer. or I want to drink this halal coffee, but my intention is that I don't want to sleep this night. Why? Because I want to spend the night in prayer. That intention make the permissibility now that which was not rewardable, rewardable. You know, mubah was not rewardable, but because of your intention, it can be it can be rewardable. So juróomi ate yi ñoo am ci lislaam mbir moo gis rek benn dafa xaraam mbaa ñu sib ko mbaa farata mbaa muy luñ sopp eh, borom ibnu Ashir nag dafay wax ne luñ digle ca te dogu ca mooy farata bu buñ ko digle te dogu wuñ ca mu ne mooy mën duub luñ sopp luñ tere te dogu ca mooy xaraam buñ ko teree te doguwuñ ca mooy luñ sib loo xam ne nag def ko ñàkk a defa yam amul yool ce def ga amul bakkaar ca baga mooy lu dagan leer na de loolu mooy lu dagan alaaji ibrahima ñas radiallahu taala anhu mu ne juróomi atte yi boo leen bëggee simplifier da ngay jàpp ne dañoo nekk ci dëkk dañoo nekk cib dëkk dëkk bi am na ñaari kër yoo xam ne jullit yee ko moom am ñaari kër yoo xam ne yéeféer yee moom ñaari kër yu jullit yi mooy farata ak luñ sop ñaari kër yu yéeféer yi mooy lu xaraam ak luñ luñ sip ñuy daje nag buñ xëyee julli di jóge ca seen kër ñëw ci teen bi yéeféer di jógee seen kër ñëw ci teen bi teen bi mooy lu dagan fa lañu ñu dajee root bu ñu rootee ba nekk ba toppi ku nekk dellu sa kër ndam nag gépp ak ndam nee na mi ngi ci nga fexe ba yéeféer bi nga tasee ci teen bi nga dimbale ko ba yóbbu ko ci kër sa kër yow muy liñ sopp ak li war waaye gàcc gépp ak gàcc mooy nga sàggan ba yéeféer bi bu ngeen tasee ci teen bi mu yóbbaale la seen kër mooy xaraam ak luñ hmm? ñun jullit yi daal su ñaari kër la am kërug sopp ak kërug war yéeféer yi kërug xaraam ak kërug sib ñu war a dajee nag kërug dagan ñoo ci yem dégg nga wax ji de. mooy naka ci arab. ah. dagat mooy naka ci arab. mooy mubaax am na tur yu bari am na jawaaz jaais mubaax ibaaxa dégg nga de booy jàng ibnu ashir way na ko ci way wu rafet dafa ne alxukmu fi shari xitaabu rabbina almuqtadi ficli almukallafi iftuna bi talabin aw idni aw bi wadci li sababin aw shartin aw di manci mu ne aqsaamu xukmi shari xamsatun turaam attey sharia yi attey xaaji attey sharia yi mu ne juróom lañ fardun wa nadbun wa karahatun xaraam summa ibahatun farata ak sop ak cibel ak xaraam ak dagan mu ne fa ma'murun jusim luñ digle te dogu ca fardun mooy farata wa doonal jasm su yéesee dogu man doobul mooy luñ sopp dun nahyi makruhun luñ tere dégg nga te te ca mooy luñ sib su àndeeg wa ma xat mi su àndeeg dogu nag ak waral xaraam mooy lu xaraam zone na yi makruh moo tax xaram ma zone wajhayi nag lu ñu digle ñaari anamam nag mu baaxun mooy lu dagan am na beneen façon bu ko borom xam-xam yi di firee ñu ne lu war mooy loo xam ne def ko boo ko defee am tiyaabo soo ko bàyyee am bàkkaar lu war mooy loo xam ne soo ko defee am tiyaabo soo ko bàyyee am bàkkaar luñ sop mooy loo xam ne soo ko defee am tiyaaba waaye soo ko bàyyee doo am bàkkaar lu xaraam mooy loo xam ne soo ko defee am bakar soo ko bàyyee te yàlla tax nga am tiyaaba luñ sib mooy loo xam ne soo ko defee doo am bàkkaar waaye soo ko bàyyee te yàlla tax nga am tiyaaba lu dagan nag mooy loo xam ne def ga ak ñàkk gaa yam bàkkaar amu ca tiyaabo amu lu dul nag nga def lu dagan ngir dimbanikoo ko ci jaamu yàlla boobaa nag yéene ba nga yéene mën naa tax lu dagan jógee ci dagan nga xam ne amut yool yóbbu ko ci jaamu goo xam ne dafay am yool maa ngi nii gëmmintu ma xam ne suma ma eh, sanguwut naanuma kafe dinaa nelaw ma ne ma dem xappoo ndox naan kafe ndax ma mën a taxaw julli guddi gi julli sango xappoo ndox ak naan kafe dafa dagonoon rek waaye yéene bi ma am ba def ko moo tax xappoo ndox ga ak naan kafe ga sax am naa ca yoon moo tax yéene mën naa jëlee jëf ci dagan yóbbu ko ci mën naa jëlee jëf ci dagan yóbbu ko ci dégg nga lu ñuy faye waa ngi dégg de moo ne mën naa jëlee jëfit ci yool fu juñ la waroon a yoolee mu yóbbu ko ci fuñ lay mbugalee yàlla nañ ci yàlla boole musal xam ngeen ni jàngum alxuraan nu mu baaxee nit ki nag di jàng alxuraan ngir nit ñi déggu ko ne ko yaa neex baat jóge na ca ab yool boom ca doon am jëm ci bàkkaar moo tax mu ne fu ma toll woonati wa in taamada su tayee gestu ga fa huwa makruhun luñ sib in istadbaral qiblata nag su tëddoo qibla qataa salaa na eh, hmm? na dagg julli if he turns his back to the qibla he must cut his prayer off wa man salla ku julli bi xariirin ci soy mooy suwa aw dahabin mbaa wurus aw saraqa mbaa mu fi salaati ci biir julli ga aw nadara wala mu xool muxaraman luñ xaraamal fa huwa moom aasin aji mooy kat wa salaatuhu wante julli ga aji wér ñaari njëkk yi nag moom ndax jigéen mën naa sol soie mën naa takk wurus wala góor nag amul droit sol soie amul droit takk wurus maanaam dafa bëgg a wax ne kii làmboo ak mooy yàlla ci biir julli ga mooy yàlla gu mel ni sol luñ ko tere muy soie mba wurus bu dee góor mooy yàlla ni a ji na ku dend ak moom yore portable mu daal di jël portable ba dugal ci poosam ba gis na junne waaye juy lang xam naa séeréer lay doon mu jël junne ba def ci poosam wala jigéen romb na ko waru ko xool mu xool ko xoolu bànneex ba góor romb na ko moom jigéen mu xool ko xoolu banneex nee na fa ki def lii dee aasin aji mooy yàlla la mooy gu rëy waaye wa salaatuhu julli ga nag saxihatun wér na ndax lañ ko digal ci zahir yëpp ci matal sujjóot yaag njàng ma def na ko dégg nga de leer na wala leerut whoever prays wearing silk or gold This has to do with men, not women. Steals during the prayer or looks at something prohibited, then he has disobeyed Allah Ta'ala. But his prayer is valid. Hmm? When we talk about uh, silk or gold, that's for men, for, mm-hmm. only for men. But when you talk about stealing, somebody can like steal somebody's phone or somebody's money while praying. Somebody can look at something that he's not or she's not supposed to look. You know, they have sinned, but the prayer is valid. Prayer is valid. wa man xalita ku juum fil qiraati ci jàng dafay jàng alquran ba ci digg ba mu juum bi kalimatin daal di indi benn baat min xayri alqurani bu bokkul ci alquran sajada baada salaami bu julli ga noppee na sujjoot gannaaw bu mu salmale wa in kaana su fekkee baat ba mu dolli nag min alquraan yi am na ci alquraan fala sujooda alay sujood waru ko ndax alquraan la doon jàng alquraan la ca dolli mutlaqan mu ne a ah, déedéet illaa an yataxayyara la war a def dafa tëb an gi illaa an yataxayyara lu dul soppiku nag allafdu baat ba aw yafsuda mbaa yàqu almaana maanaama lu dut nag mu jàng baatub alquran boo xam ne namu mu ko jàngee du noonu yàq baat ba wala baatu alquran ba mu indi ci biir njàng ma dafa yàq maanaama dafa yàq maanaama fa yasjuda kon dafay sujoot mooy faawu kan faawu fa fa yasjuda kon dafay sujoot baada salaami gannaaw bu mu sëlmale ndax yokk na ci julli gi lu ca bokkut maa ngay julli di jàng suratul fatiha bi ma demee ba ci ihdina sirata almustaqima sirata alladina an'amta alayhim min annabiina wa siddiqina wa shuhadaai xam ngay loolu yëpp alquran la waaye ma ñëwaat siraat alladina an'amta alayhim gayri almaxdubi alayhim wala ddaalliin amin jàng yokk naa ci julli gi waaye yàquma maanaa mi waruma ko tay nag lii juuma tax moo tax wa man xalita la wax ku juum waxul ku tay yaa ngi dégg kii dafay jàng araayta alladi yukadibu biddiini fa dalika alladi yad'u lyatim mu ne fa dalika alladi yuwaswisu fi suduri nnaasi xam nga yàq na maanaam kooku dafay sujjoot ku njëkk ki yàqul maanaam moo tax ma naa bañ a sujjoot hmm? wala mu ne fa dalika allasi waswasatuhu fi suduri naasi yàq na baat bi ndax yu waswisu hmm? qul audu bi rabbi nnaasi maliki nnaasi ilahi nnaasi min charri lwaswaasi lxannaasi alladi waswasatuhu fi suduri nnaasi yàq na ma yàq na baat bi hmm? kooku dafay sujjoot moo tax mu ne illaa an yataxayyara lu dul soppeeku laf bu baat bi aw yafsuda mbaa yàqu almaana firima maanaama fa yasjuda kon dafay sujjoot baada salaami hmm? so something is uh, ringing here. I don't know. Maybe that's my phone. <coughs> so When a person makes a mistake in the recitation using a word that is not from the Quran, he prostrates after the salam. If the word is from the Quran, then he does not prostrate unless he changed the word or ruined the meaning, in which case he would prostrate after the salam. Mm-hmm. leer na de I'm following along with you on the the pages. okay that's good. yeah yeah that's good but I feel like I have to do it. okay that's good that's good to know. yeah because I know yeah because I know it's, it's too much to go back and forth but I'm definitely I'm following along um, it's on page um, 33. alhamdulillah yeah. that's good that's good. nee na waman naasa ku gëmmentu na fi solaati ci biir julli fala sujooda aley sujood waru ko julli ba ci kanam mu yëg ne dafa gëmmentu gëmmintu rekk julli ga du yàqu du waral sujud wa in thaqula nawmuhu ante su nelaw ye diisee nag maanaam gëmmantu na ba far nelaw fekk mi ngay jullikat nelaw yu diis xam naa ne ku doy waar lay doon waaye lu mën a nekk la ndax léeg-léeg nit sonn pare eh, di julli far nelaw kooku aada na baamtu asalaata julli ga wal wudu ak njàpp la it nag ndax nelaw yu diis dafa yàq njàpp hmm. du noonu kii daal mi ngi gëmmentu gis ne bët yaa ngi kii kii waaye kayang kayang waaye nelawul julli ga dara yàquwul ci sujjoot waru ci su yeggee ci nelaw yu diis nag na baamtu julli ga na baamtu njàpp la wa aniinul maridi binni aji feebar onku aji feebar muxtafarun luñ baale la ki feebar feebar mettitu feebar bi tax mu ngi julli du onku kooku du lum tey mettita tax kenn du ko wax ne ko ah yow wax nga de hmm? wa aninul marid onku ku feebar the mourning of a sick person mughtafarun is forgiven eh, lu ci topp wata mooy xaqan wala xaqarmbiku wala xattam naka soxna Joob ni ñu koy waxee xaaxtandiku xaaxtandiku ah. waaw xaaxtandiku na na <coughs> mooy clear when you clear your throat hmm? hmm? xaaxtandiku ah boobu mooy xattandiku ak benn la mooy clear mooy clear sa boo yëgee ne am na lu nekk sa throat bi nga ne <coughs> <coughs> xoox du benn. waaw benn loolay xaxtandiku nag. Oh, ok loolay xaxtandiku. Eh? loolay xaxtandiku clearing one's throat out of necessity mooy naam loolu dafay fekk mu nekk necessity du lekk rek looy xam ne yow naa un un bokkut ak loolu. ok. Hmm. xaxtandiku foo ko fekk rek dafay am lu nekk sa throat nga koy bugg a dindi loolay real xaxtandiku. Hmm. wat wat tanaxnuxu xaxtaniku li darurati nag ah ngir ngant li darurati ngir contrainte ngooxtafaroon luñ baale la mooy da nga gis ne euh, sa throat bi mi ngi mi ngi mi ngi kii te xam nga bu kii boo loolu doo mën a jàng il nga nga clear ko mm-hmm. moo tax loolu la wax ne clearing one's throat out of necessity is forgiven muxtafaroon luñ baale la su fekke nag yow rek yaa bëgg a nekk di xaxtandiku noonu te amul nécessité kooku yaa ngi bokk ci yokk ci julli gi lu ci bokk moo tax mu ne walil ifhaami su fekkee pour ñu dégg la nag walil ifhaami su fekkee pour dégg déggloo kenn la munkarun lu ñu sib la parce que du làmmeñ bi moo wax waaye fraude euh, nu mu tuddati fraude bi def na bruit boo xam ne dañ koy dégg mu ne waaye nag wala tabtulu salaatu julli du yàqu bi ci moom manam koo xam ne dafa xaxtaniku pour ñu dégg ko pour xam ne dafay julli bokk la ko naan uhu waaye daf <coughs> nee na nee na loolu de dañ koo sip waaye julli ko yàquwul mu mel ni daf la bëgg a jox solution boo xam ne peut-être mooy tane xaxtandiku même su fekkee dañ koo sib mu ne wa man naadaahu ahadun mën na am solution pour loolu la waaye mën naa am tamit leneen a tax ndax ku ñu woo la wax wa man naadaahu képp koo xam ne woo na ko ahadun kenn am na ku la woo fekk yaa ngi julli wa man naadaahu koo xam ne woo na ko ahadun kenn fekk mi ngi ci biir julli fa qaala lahu mu ne ko fa qaala lahu mu ne ko subhaanallah yaa julli am ku wax sa tur soxna Njóoba Fatima nga ne nga ne subhaanallah pour sibeef na loolu wa saxat wante wér na nag salaatuhu jullim ngi julli nga dégg ku la woo sa tur nga ne subhaanallah pour mu xam ne yaa ngi julli sib nañ li nga wax de waaye julli nga wér na ndax subhaanallah sàbbal yàlla la alquran la subhaana subhaanallah sàbbal yàlla la subhaana mi ngi ci alquran allah ah quick question aha so am na temps Sénégal sama maam bu ñu doon jiite ñu julli dafa juumoon fekk julli bi pare na mu yëkkati ko waat pour defar beneen raaka mu jóg pour defar beneen raaka ñun ñëpp ñu wax subhanallah góor ak jigéen I don't su fekkee ne su fekkee ne góor ñaa ngi fa. Mm-hmm. nañ ko góor ñi wax su fekkee ne góor ñi xamuñ ko na ko jigéen ñi wax maanaam bu ko jigéen ñi waxul te yow xam nga ne dafa juum nga wax ko. ñaareel nag bu dee jàkk yi ni ñuy bindoo bu fekkee ji boo ko waxee kenn du ko dégg. moo tax ñuy bëgg ilimaan bi yonentu sallallahu alayhi wasallam dafay digle ñi koy wër mu nekk boroomi xel nekk boroomi jàng buñ ne boroomi xel nag waxuñ ki gën a muus waaye mooy ki nga xam ne xelam ci yàlla euh, mët na ndax ñoo mooy ñi nga xam ne bu imaam bi amee bu juumee danañ ko mën a gàggante su defee lu war a def ñoom teew nañ ba danañ xam ne dafa juum wa man naadaahu axadun fa qaala lahu subhaanallah kuriha wa saxat salaatuhu if someone is praying if someone praying is called and he responds by saying subhanallah it is disliked although his prayer is sound it is disliked because you are in prayer you are in prayer Don't worry about someone who's calling you. You are in front of Allah Ta'ala. You don't want turn away from Allah Ta'ala. We were saying uh, sànq ñu ngay wax gestu ci julli ne dañ koo sib su fekkee ne tey woo ko uh, dara nekk ci su fekkee tey woo ko soo ko fayee tayee sib nañ ko soo dëddoo xibla bi julli gi waaye am na gestu bu gën a garaaw yooyu mooy gestu boo xam ne nit kaa ngay julli xelam a ngi ci e, ceebi jën bi salamata togg ba yaasin xelam a ngi ci réunion bi mu war a dem su pare loolu mooy spirituel gestu waaw nee ñu saa yoo ko defee yàlla dana lawoo woo xaw ma da nga ko déggam déet ne la ilaahi na yaa abdi foo gestu jëm Mm-hmm. yow sama jaam ila man huwa xayrun minni to someone better than me moo ndax dafa am ku ma gën ku tax ngay gestu jëm ci moom li nga war a def yëpp li koy sottalan ci loxo loxoy ki nga taxaw ci kanamam waaw wa man waqafa ku gag ngay wax do wax ku taxaw boo ne ku taxaw it mu jub waaye da nga naan ko gat fil qiraati ci jàng ngi jàng alquran dégg nga de fekk saar lay lay lay lay jàng ndax lay ca kanam moo lay wan saara tax muy wax walam yaftax alayhi ahadun te kenn gàggantiwu ko taraka na tilka laayata laaya jooju wa mu jàng ma baada la jëganaaw mu jeex yow yaa ngay jàng bu ci kanam nga gàgg bu fa nekk di nat nati ba fa laaya ba bu fekkee ne kenn gàggantiwla nga dem ca laaya ja ca topp waaw bañ ko def ilimaanu mor jama ba ah. eh, dafa eh, sëñ Cheikh koy nettali mu ne nee na julli jot rek ilimaan ji ne dégg naa ne am na ku jóge Tiwaawoon dikk fi te nun duñu jiite ku jóge Tiwaawoon Mor Jama nee na Sëriñ xam nga man daara ja maa ngi bokkoon ci bandaar yi jànguma woon ñaan <laughs> ñaan xooñ rek laa fa nekkee woon ak ndesti xooñ moom xam ngeen ko ndes si nag mooy lii des ci inde noonu mm. mu ne loolu rek laa fa nekkee woon ne ñu jiital ma rek mu ne xam nga timis moom xul wallaahu ahad ak innaa tey naaka doy na ci waaye nee na tiital rek ma dal ma dal ma dal ma dal wa samaay taarix <laughs> <laughs> nee na ndeke mokkaluma ko nee nañu kabare ko samaay wa taarixi wa ma adraka ma taarixu nañu mu saaxibu in kullu nafsin lama alayha hafisun am na xamatuma la ma delluwaat ni in kullu nafsin lama ndeke jàkk ji kenn mokkalu fi wa samaay wa taarixi ñoom ñëpp foog ne dama bëgg ñu répété ko ñu àndandoor ne la maa lay haha <laughs> ma ne tey rek la yàlla doon xaar nee ma toog rek dégg am baat bu nekk ca ginnaaw naan ma fal yan suru <laughs> nee ma gestu e ko la <laughs> kooku kan la mu ne ma mën a duudu <laughs> <laughs> duudu nga xam ne ñoo neewoon ca daara ja rek lañ fa nekkee woon mosuñ juba moo may gàgganti kooku xaw ma fu ma jëm ne ma xalaat ba ci kanam rek yàlla dimbale ma ma ne ko kenn du wax fal yan suuri fal wax <laughs> nee na mu ne ma yow ni nga sonne boo jutee ci sama fal yan suru doo daw ne wallaay nee ne ko wax nga dëgg di mu ne ma rukkowal nag timi si jàngi weesu walla waaye boo gagee boo xamul la ca topp seeta laaya ja ca topp nga dem fa in taadarat su fekkee nag dafa jafe alay ci moom rakaa ruko waaw fa inta taaddarat su fekkee dafa ngàntulu alay ci moom dafa jafe rakaa taru ko mooy non seulement mënta yeggali euh, saar wim ne wala mënta yeggali laaya jum ne waaye xamulit laaya ja topp jàng na ba ci digg saar wa mu gàkk demal ca laaya ja ca topp soo xamul laaya ja topp mu ne su rukoowal lu ko war imaam kon loolu mooy su fekkee ni da nga dem nga ba xamatuloo mën nga rukkoo rek mën nga rukkoo waaw ah, mën nga rukkoo bëgg wax yàq julli man dama bëgg wax mën nga mën nga mën nga yàmal fi nga yem fi nga càngee hmm, waaw mën nga rukkoo mën nga fa taxaw mën nga fa yemale tari bi ñaari option nga am damay tari mhm. dégg nga ci digg bi yaa ngi dégg de ma benn ma bàyyi laaye ji ma cange seet laaye ca topp su fekkee ne mënta ne par exemple mu commencé na amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi walmuminun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli xamatuma la ca topp ma xalaat ne laaya ji topp ci fii mooy laa yukallifu laahu nafsan ma daay bàyyi li des ci laaya bi dem ci laa yukallifu laahu nafsan yeggali saar wi su fekkee ne xaw mënumaa yeggali laaya ji mënumaa yeggali mënuma xawma laaya ja topp ca booba fi ma yem maru ko moom lay wax ne wa man waqafa ku gak fil qiraati jàng walam yafta alayhi ahadun te kenn gàggantiwu ko wala ñu jël vocabulaire yaasin ku càng taraka na bàyyi tilkal ayata aaya jooja wa qaraa mu jàng ma baadaha la ca gannaaw aaya ja fa in taadarat ndem jafe na alayhi ci moom rakaa na ruko wasamaai wattaariq wa ma adraka ma taariq an najmu thaaqib in kullu nafsin lama lama alayha xaafid dégg nga nga fàtte ne fal yanzur moo ci topp nga xalaat wa samaa'i zaati raj'a demal jël ko parce que maanaam du yàqu soo ko mënul mu ne nga ru ko hmm? ma baax it baax na waxoon nañu ci bind yële ne ku bàyyi saar dem ci weneen saar mbaa mu jàng ñaari saar dara war ko am déet uh-huh. waxoon nañu ne kuy jàng saar ba ci kanam mu bàyyi ko dem ci weneen mbaa mu jàng lu ëpp benn saar mbaa ñaar dara waru ko. dara newu ci dara newu ci waaye jaru ko parce que nekkuloo ci test. nekkuloo ci test am na ñoo xam ne moom. waaw de foog ñu jëm ko reprendre pour wan nit ñi ne leen affaire la rek waaye saar yu mokkal naa ko jaru ko. <laughs> Eh, tu n'as <laughs> parce que yaa ngi ci jaamu yàlla nekkuloo ci nekkuloo ci test waaw jaamu yàlla nga nekk. Uh-huh. waaw nekkuloo ci euh, compétition. compétition. mu ne wala yanzur baax na wala yanzuru baax na boo ne wala yanzur nga sukkoon raagi mooy bum xool boo ne wala yanzuru mooy du xool mushafan kaamil bayna yadayhi ca kanamam maanaam jarul na nga naan càng naa kaamil baa ngi nii sama kanam naa ko jël xool déedéet jarul ubbi kamil di xool ndax loolu mutlaqan mu ne adéere illa an yakuna lu mu nekk fil fatihati ci suratul fatiha kooku moom fala budda min kamaliha fokk mu mët fala budda mënta ñàkk min kamaliha ci matam bi mushafin moo xam kaamil ngay jëfandikoo xool aw xayrihi mbaa lu dul su fekkee ne fatiha la moom fokk mu mët mënoo wax ne jàng naa ba ci digg fatiha ma ma dégg nga ma tëb aaya boobu dem ci beneen aaya wala ma rukkoo déedéet bu dee fatiha moom foog mu mët soit nga yootu kaamil mbaa ñu gàgganti la mm-hmm. ah mm-hmm. leer na de. léegi bu fekkee ni que nii man dafa am benn saar bu bëgg a tari dama ko fàtte may julli ma yorewaale sama téere bi di ko xool di ko liir ci kii bi. Mm-hmm. loolu kiiwul recommandé tere fii. Hmm. wala yandur bu mu xool mushafan kaamil bayna yedday ci kanamam. lii nag we're talking about jullik farata bu jullik naafila loolu beneen question la. Hmm. we are in farata. farata yow. Mhm, go ahead. weeru loolu naafila rek lañ koy def waaye du ñu ko def ci julli farata bi waaw ñi koy def dañ koy def ci naafila bi julli farata bi moom ku mokkalul faate ak lixlaas yi moom waroo jiite sax bay jiite naafila bay jiite wala yandur bu mu xool mushafan kaamil bayna fa kanamam illaa an yakuna fi lfatixati lul mu nekk ci fatixa fala budda mënta ñàkk min kamaliha ci mëtam bi mushafin moo xam kaamil lay jëfandikoo aw gayrihi wala lulul kaamil fatixa ba moom foog mu mët fa in taraka ndem bàyyi na min ha ci fatixa aayatan benn aaya sajada qabla salaami sujood qabla salaam wa in kaana ndem nekk na akthara lu ëpp benn aaya batala salaatuhu julli ga yàqu na kii dafay julli fa jàng fàtte eh, jàng fatiha fa benn aaya bàyyi mistake wala mu fàtte benn aaya bàyyi mistake bàyyi ndax benn aaya rek la mu ne na sujjot qabla salaam ndax bàyyiwul farata waaye dafa bàyyi as lëf ci farata te lam ca bàyyee gën tuuti lam lam lam lam lam lam bàyyi dafa tuuti ba mën nañ koo jéggale ndax benn laaya la te tayu ko mu ne kon kooku na sujoot xabla salaam wa in kaana ndem nekk na lam bàyyi nag akthara di gën a bëri benn laaya batala salaatuhu julleem nga yàqu na are following Salamata I don't even know. <laughs> I'm just I'm mm-hmm. just just looking at here. Yes. Yeah. Yes. If you need the translation, let me know. Or if the translation is not good enough, let me know. Okay, no problem. Mm. <clears throat> du noonu wa man fataxa ku gàgganti ala gayri imaamihi ku dut imaamam batala salaatuhu jullim yàqu na xam nga loolu ci la joŋee ci loolu la yam yow yaa ngi julli dégg beneen waaye di julli gàgg nga koy gàgganti hmm. loolu ci la joŋee yam kuy julli kay ki jiitewul sa yoon nekkul ci njàngam da koy gàgganti boo ko gàggantee si julli ko yàqu na loolu lay wax xaw ma leer na am déet booy gàgganti ilimaan bi lay jiite ngay gàgganti waaye yaa ngi julli ak mbooloo nga dégg beneen illi bàyyi buy julli ak beneen mbooloo wala moom kese muy julli mu gag nga ba fa sa julli gi di ko gàggante nee sa julli yàqu na wala yaftaxu mhm. mais bu fekkee ni ngi julli mu gag loolu loolu moom xam nga loolu fi ne ci lu yàq julli ak ci lu yàqul julli lañ nekk hmm. yaa ngi dégg fi mu ne nii xam nga loolu boo ko defoon it saxul yow yow julli woo ba sa julli di yàqu mhm. wala yaftaxu bu mu gàgganti sax ala imaam yi ilimaanam sa ilimaan sax nee na bu ko gàgganti illa an yantawira lu dul mu xaar moom ilimaan ba alfatxa gàgganti maanaam ilimaan bu mu gàgg rek nga njëkkante gàgganti ko bàyyi jox ko temps soo yëgee ne dafa bëgg ko gàgganti na nga gàgganti ko ndax mën na am eh, bu xoolee gis ne mokkut mu tëb ko dem mbaa mu dem jàng beneen saar su fekkee def na loolu bu ko su xaaree na nga gis ne dafa bëgg ñu gàgganti ko gàgganti ko waaye am na ñoo xam ne pour ñu xam ne mokkal nañu buy ilimaan bi di tax benn rek ñu gàgganti bu ko defee buñ paree nag ñu xool na ni waa dafa aay de islaam <laughs> loolu doxul ay moom do kenn du ko wane ci kanam yàlla waaw Cheikh Tidiane Gueye na ko yàlla yërëm nee na dafa mos di julli ci benn dëkk bu mu demoon bi mu sëlmalee nee na ki mu dendaloon daka la ilimaan ji sëlmalee rek mu dal ci kaw ne ko yow dangay julli di yor sa loxo ah commencé biddaa nangam nangam da julli nee na e, e, Cheikh Tidiane Gaye nee na ma ko naan ko ne ko inna lillahi wa inna ilayhi rajiun inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ba waa ji tiit ma ne ko yow sa diggante yàlla bi ngay julli yaa ngi ma doon gis inna lillahi wa inna ilayhi rajiun inna lillahi waa ji dafa mujj jël dàllam rek daw <laughs> moo tax parce que kanam yàlla moom toroxlu rekk fa war waaw wala yaftaxu ala imaamihi du gàgganti imaamam illa an yantadira lu dul ilimaan ja xaar alfatxa gàgganti aw mbaa aw yufsida mbaa mu yàq almaana maanaama wala mu jàng jàngin woo xam ne dafa yàq maanaa maanaam laaye ja su boobaa moom doo xaar danga koy danga koy wax maanaam mu wax loo xam ne dafay yàq maanaama kooku danga koy gàgganti ndax ci luy defar julli gi nga nekk Mm-hmm. No, I didn't. I'm sorry. Um, are you just to clarify on the part where they talk about um, imam, like if he's reciting, like no one should correct him. Mm-hmm. Okay, just making sure. Yeah. yeah. What? What? What is the question? Oh, it, I'm sorry. It wasn't even a <laughs> question. It's just making sure that mm-hmm. I'm following the right. I'm just making sure I'm following the right, um, the right uh, uh, passage. Okay. What? What? What? What did you understand? So basically, that um, like if the imam is reciting and if he says something that's not right, um, nobody should try to correct him unless he needs the assistance. No. What what what he's saying is not saying something that is not not saying something that is not right. Mm-hmm. What what what he say one should not correct the imam unless he waits for assistance or changes the meaning. Meaning, if Imam, for example, is reciting a surah and he mhm. stops, he, he's, how do you call it? He stops in the, in the middle of the reci recitation. He he stops. Mm -hmm. You do not just go. I mean, do not be hasty in correcting the Imam. For mhm. example, Imam is reciting, you know, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود then he stops. Mm-hmm. Don't just come and say, Qutila ashabul hudud. No, no, give him time mm-hmm. until you feel that he needs, he wants it. Mm-hmm. You know, because he may want to go to the next ayah or to the next surah, or he mm-hmm. may want to just go for ruku. You know, give him time mm-hmm. until you know that it's needed. But he's not saying correction when he decides something that is not right. correction correcting mm. here is talking about helping him know what is next okay okay so that's so why it says part, unless part? yes i'm coming unless he waits for mm. assistance the, the second part is or changes the meaning mm. if for example he reads it in a way that the meaning is changing meaning he misread mm-hmm. then you do not wait because he is mis um, reading the Quran. He's reading something that is going to totally change the meaning. He's misleading the mm. people who listen to him, and they may not know this is Quran or this is not uh, this is not from the Quran. Mm-hmm, mm-hmm. Yeah. So in that case, okay. Mm-hmm. for example, when you uh, you recite Surah Al-Bara'ah, there is a very dangerous ayah in Surah Al-Bara'ah. Mm-hmm. wa adhaanun min allahi wa rasulihi ila nnaasi yowma alxajji al akbari anna allaha bari'un min almushrikina if you say wa rasuluhu it's good if you say wa rasulahu it's good but if you say wa rasulihi then it's a musiba hmm? booy jàng suratu tawba yàlla ngi wax ne yàlla dëñ na ci yéeféer boo ne wa rasuluhu nga ne wala nga ne wa rasulahu yi tamit dëñ nañ ah, mooy yenant bi tamit sallallahu alayhi wasallam dëñ na ci yéeféer yi boo ne wa anna allaha bariu min al mushrikina wa rasulihi mooy yàlla dëñ na ci yéeféer yi dëñ na ci yenant bi waliyasu billah If you put kasra on the lam, you change the meaning completely. So if you hear the imam say wa rasulihi, in that case, you have to stop him and correct. Because what he's saying is that Allah tabaraka wa ta'ala himself uh, wa adhana min allahi wa rasulihi ila nnaasi yawma alhajji al akbari anna allaha bari'un min almushrikina wa rasuluhu is a declaration from Allah and His Messenger, is made to all people on the day of the greater pilgrimage that Allah and His Messenger are free of the polytheists, of the mushrikeen. But when you say Allah wa rasulihi, you're saying that Allah is free from the mushrikeen and from the prophet. How can Allah be free? naka la yàlla mën a dëñtaloo nan la yàlla bàyyee nan la yàlla mooy yàlla génn na ci yëf yéeféer yi génn na ci yonent bi if you put kasra on the lam right oh, la aw yufsid al maana mooy if bu fekkee ne dafa yàq uh, maana mi if he changes the meaning then you have to correct the imam but if imam just stops you know give him time that's what he's saying Un until you know that he needs assistance or he wa he wants he waits for assistance leer na de waaw ah. lay wax ne wala yaftahu ala imaamihi du gàgganti imaamam illa an yantadira alfatxa lu dul mu xaar gàgganti ga aw yufsidal maanaam mbaa mu yàq maanaama yàlla ne yàlla de moo yonantam génn nañ ci yéeféer yi yow nga mas laam nga kasara mooy yàlla de génn na ci yéeféer yi génn na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wal iyaadu billah waaw tax alxuraan ñu maas ko ndax bu njëkk alxuraan amuloon mas waaye bi ci làkkat yi duggee ñu xam ne foog ñu maas ko ndax yaaram du seen làkk yaaram mooy arab làkkat yi mooy ñiy làkk lu dul arab seetal loolu yaaram de képp ku lakk lu dul arab rek làkkkat la lay firi wala fii sax ñoom làkkkat yi la ñuy wax ñoom it maanaam ku nekk rek ñeneen ñi ñooy sa ñooy yi ci yow xanaa ñu taxaw fii ni ndax maa ngi am fu ma war a dem tey dama noon trent minutes rek laay def ndeke romb naa ko eh, ñu préparé nag fexe ba li ñuy jàng ñu dégg ko ndax su chapitre bu pare lépp dañ koy indi sous forme de question réponse incha allah bu ko defee regardless of yeneen commentaire yi ñu ciy def waaye li ñuy soxla comme réponse mooy li borom téere bi wax ne mooy atte nangam ci sàngam hada wa sallallahu ala maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bu ngeen amee question nag mën nañu jël benn minute ñaari minute suñu amul question ñu yëkkati jotaay bi li Oustaz wax yal na ko yàlla wëttu hmm. is there a question incha allah ñu hmm? ñu balaa ñu tëj nag ñu jaajëfal ñëpp macha allah surtout soxna Fatou Kiné soxna Fatima seen teewaay ak seen teewal ñoom dañoo teew teewal macha allah Eh, jàpp ci liggéey bu baax a baax a baax aja eh, njóoba it macha allah gis nañ ne ñëw nga ni nga ko waxee woon ñëw nga gis nañ ñëw gi macha allah yal na yàlla barkeel lépp yal na yàlla barkeel lépp ngeen ñaan yàlla projet yi mu teg ci loxo mu mu àgg ndax moom rek ko mën a àggali mm-hmm. alhamdulillah